Abdoulaye Wade il est un peu caaxaan <laughs> am na xam-xam mais il est un peu caaxaan il vient ici il cëppi cëppi à gauche il cëppi cëppi à droite il sort un mouchoir blanc dugalaat ko ci poche bi ne leen bu ñuul la <laughs>